L'eau multimédia moi l'un des émission assalafou Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, angle Paul Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau accessoires, accessoires ci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 mbokki ñu dellu si ci sunu jotay aselefuma alquran di ko amee fii ci la maison du cora waaye di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gunge muy loo multimédia ñoom ñu ñuy jàppale bu baax a baax ci jotaay bi yal na yàlla bur bi subhanahu wa taala barkeel leen bu baax euh, macha allah ñu wéy rek ak jëmm joo jëmm ju tedd joojee nga xam ne moom la ñu doon waxtaanee mu nekk uway sunil qaran yi uway sunil qaran yi jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñu doon waxtaanee ci jotaay yi weesu yépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xamaloon toog nettali ko sahaaba yi ki nga xamante ne moom mooy harim ibnu hayyan harim ibnu hayyan dafay nettali harim ibnu hayyan al abdi moom dafay nettali mu ne qadimtu bés damaa jóg fa lam yakun lii hammun illa uwaysa ki ma taxoon a jóg daal moom mooy ma wëri ki nga xam ne moom mooy uwaysinul qarani pour ma mën a daje ak moom asalu anhu ma di ko wër ko laajte di ko laajte fa dafa'tu ilayhi bi shati ilfuraat ma daal di koy fekk foofee nga xam ne ca dexu géeju maanaam ca peggu dexu dexu furaat dexu furaat ñëpp xam nañ ko ma daal di koy fekk ca dex ga yatawadda mu nekk di jàpp wa yaghsilu sawbahu mu nekk di raxas li nga xamante lay moom mooy yërëm maanaam muy muy fóot ay yërëm dama ko fekk la ilaha illallah waliyu yàlla bu teddee nii nga xam ne ku mu jéggalul yàlla buur bi subhanahu wa taala jéggal la lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko ma fekk ko ca géej ga ca dex ga mu nekk di foot ay yérem fa araftuhu bi naati ma daal di koy xàmmee ci nanu na ko yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam portrait woon maanaam na mu ko mellale woon fa ida rajulun aadamu maxluqu rasi kathu lixyati mahibul mandari fa sallamtu alayhi wa madattu ilayhi nee bi ma ko gisee na ko yonte bi waxee woon rek te bi maanaam xeesaay bi nga xam ne xees na lool ba xeesaay bi xaw a laal zone ak rouge waaw ma gis ne dafa wat xarkanam ga kathul lix maanaam dafa wat bopp ba كثو لحيتي سيكيم با دا فاتال دا فاتال لول مانام سيكيم بو تال ليور ما هيبول مندري دانكو خول رك خامني مانام فيزيون بي مانام سوكو خول رك دا ياك هيبام دا ياك ليغا خامني موي كاركتيرام غا خامني نيت دغ لا واو مون فسلمت عليه ما دادي كوي نويو ومددت اليه يدي متالل كو لخو لي اصافحه بور ما دادي نويو اك موم فابا اي يصافحني مولانك مانام مو باني دوما جخ لخو فخنقتني العبره manam yemu nak daa di may ma daa di jax lol lutax mom joxuma loxo lima raaitu min hali fa qultu assalamu alayka ya uwais maniko assalamu alayka ya uwais mang ngi lay nuyu ya uwais kayfa ant munema wa anta fa hayyaka allah ya harim ibn hayyan muneko ak yoyitu alayka salam yow mi nga xamne ya harim ibn hayyan al abdi muneko man dallaka alay kan mo la tektal ne man mangi fi kan mo la tektal sama place قلت الله ma ne ko yàlla allahu subhanahu wa taala qaala bi ma ko ne yàlla moo ma fi tegtal mu ne subhaana rabbina in kaana waadu rabbina la mafula mu daa dañuy jàngal isra mu tudd sellangeek yàlla ndaxte yàlla lépp lu mu digee rek dina ko def qultu ma ne allah min ayna arafta tasmi foo xamee sama tur parce que ki nga xamante ne moom mooy da daf ko nuyu rek Harim ibn Hayyan daf ko nuyu rek mom mu daal aw ci turam aw ci askanam muné ko fo xamé sama tour ak sama turu baye fa wallahi ma ra'aytuka qatt wa la ra'aytani giñna ci yàlla ne musuma la gis te yow musuma gis qala uwaysun alqarani ne ko arafat ruhi ruhak sama ruhu mom mo xam sa ruhu haythu kallamat nafsi manam sama ruhu bamula xamé rek dafa wax ak sama bop dafa wax ak sama bakkan لأن الأرواح لها أنفس نين الروح يدفع أم بكن واو كأنف كأنفس الأجساد كم بكنو جمي ما نم سنو جمي دفع أم بكن ما تنجون ديو نكنا بكنم نين نجمي أمي بكن نونو الروح ي أمي نين سما الروح سما سما بكنو روحو مو خمل سما بكنو جم لينك خمنا مو مويسة واو وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله mune julit nit ñom dañuy xamante ci ruuhu yàlla ci jëmmu yàlla lañuy xamante wa inna at bihim ad-dar wa tafarraqat bihim al-manazil donte kër ya sok sen kër sorina waye nga gis ne sen kër ya daldi soré lol lol lol qala qultu hadithni an rasulillah hadithan nene harim ibn hayyan nene mané ma uways dama bëgg nga netti ma ci hadith yonti yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bi mu ko waxee uwaysun uwaysun al qarani ne ko man de daje euh, ànduma ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ñenn ci ay saxaabam lenn ci ay xadisam jot naa ko mokkal comme yéen nii ni ngeen ko mokkalee te buntu bi bëgguma ko ubbi ci sama kanam ndax bëggumaa nekk qaadi bëggumaa nekk juge waaye bëggumaa nekk mufti bëggumaa nekk fi di def fatwa fii nafsi shughul tel na leneen maanaam maa ngi ci sama bopp allah ndaxte ñoom foo leen fekk ñoom ñu ngi jaamu yàlla taluñu sax nit ñi qaal harim ibnu xayyan nee qultu ma ne ko fatlu alayya ayatin min kitabillah jàngal ay yenni laaya ci téere yàlla ma dégg la asma'uhunna minka ma déggee ko ci yow waaw mu ne fad'ullaha lii bi da'awat soo pare nga ñaanal ma wa awsini bi wasiya après nga dénk ma nañ déglu ñett yi ahrim ibnu hayyan nee ne fa axada bi yadi nee ne uways daal di téye ci sama loxo wa jaala yamshi ala shaati il furaat muy dox ak man ci peggu dex gi dexu furaat tumma qaala mu ne ma قال ربي وأحق القول قول ربي صابرم يلا وخنا تي واخ جي گنا دغو تي واخ يي واخ جي گنا دغو تي واخ يي موي واخو يلا احق احق القول قول ربي وبالحق انزلناه وبالحق نزل كومو نيخ وخال واي ويسن القرن نينه واخو يلا موي واخ جي گنا دغو واصدق الحديث حديث ربي واختان وي گنا دغو موي واختانو يلا واحسن الكلام كلام ربي wax ju gën rafet mooy waxu yàlla kii wali yàlla la waaye nee ne doy loowut waxu boppam waxu yàlla lay nettali mu ne audu billahi alsamii alalimi min alcheytaani arrajim inna yawma alfasli miqaatuhum ajmain la ilaha illa allah laa ya googee nekk ca suurte duxaan mu ne inna yawma alfasli naka bésub teqale ba maanaam bésub atte ba yawma alqiyam miqaatuhum mooy seen rendez-vous mooy seen dajawaay ajmain ñoom bés bobu ngay gis président yi taxaw ministre yi taxaw gouverneur yi taxaw maire yi taxaw généraux yi taxaw colonel yi taxaw baadoolo yi taxaw ñam alal taxaw borom alal borom xam-xam yi taxaw ñi reeron taxaw kat yi taxaw ñëpp nekk yarami nenn kenn solut len kenn talul kenn kero ku amoon alquran wallahi di nga xamne am nga lépp ku ñakkon alquran di nga xamne besem kero ngay xam dara inna yawmal fasli miqaatuhum ajmain Uwaysul Qarni daal di jàng laaya bi yawmal qiyaama mooy rendez-vous jaamu yàlla yëpp bi mu waxee loolu summa shahiqa shahqatan mu daal di yuuxu fa ahsabuhu qad ghushiya alayh mu daal di mel ni ku daanu xëm Harim ibnu Hayyan nee ne Uways bi mu jànge aaya bi dafa mel ni ku daanu xëm bi mu daal di yeewoo bi mu jóge ximmalikoo mu daal di jàng yawma laa yughni mawlan an mawlan shay'an wa laa hum yunsaruun illa man rahima allahu innahu huwa al azizu rahim mu ne bés ba nga xamante ne moom la ñëpp di daje bés boobu yow ma laa yugni mawlan am mawlan shay'a kenn du amal kenn njariñ nit ki ak loo mënoon a siq ak moom doo doo doo ko amal njëriñ du la amal njëriñ wala hum yunsaruun te kenn du leen dimbali ana tooñkat yi illa man rahima allah lu dul koo xam ne saa borom yàlla moo ko yërëm besam keroog innahu huwa al azizu rahim yàlla mooy buur bu màgg bi nga xamante ne mooy borom yërmande bi keroog بلولا أمي ثم نظر إلي كي خامني موي هاري مبن حيان نيني ويسن القرني بمو وخيلي رك ثم نظر إلي ci la daal gesu mu daal may xol munema ya harim ibn hayyan mata abuka wa yushiku an tamut wa mata abu hayyan wa imma ila al jannati wa imma ila nar wa mata adam wa maatat hawa ya ibn hayyan wa mata maata ibrahimu khalilu ya ibn hayyan wa mata musa najiyu ya ibn hayyan wa maata muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhim ajmain yabna xayaan wa maata abu bakrin khalifatu lmuslimin wa maata axi wa sadiqi wa safiyi umar wa umara وعمر مونيكو يا ابن حيان يو ابن حيان مونيكو مات ابوك سباي دينا ويوسكو ان تموت تيو يانغي ني لا ديسنغا دي باريتول لا اله الا الله ومات ادم سنمام ادم دينا تشا ديو نجكيا وماتت حواء سنمام حواء دينا تشا ديو نجكيا يا ابن حيان يو ابن حيان من ومات ابراهيم خليل الرحمن ibrahima khalilu xaritu yàlla dee na wa maata moussa najiyu rahman yonte yàlla moussa mi yàlla doon wax muy dégg dee na yabna xayaan wa maata muhammadun rasulullah yonte yàlla muhammad dee na laa ilaha illa allah kon yow mii di ma déglu na la leer ne ñooñu dee nañ da ngay dee mu ne yabna xayaan yow ibnu xayaan wa maata abu bakrin xalifatu rasulillah abu bakr ki nga xam ne moom wuutu yonte yàlla muhammad dee na منكو ومات عمر منكو عمر دينا صديقي وصفيي سما خريت بيغا خبني ماكو تيبو مانام سما خريت لما ماكو تنال سما بوب من وا عمر وا عمر مغيوخ عمر بن الخطاب قال ابن حيان إيه، كيغا خبني موي هريم بن حيان نيكو وذلك في اخر خلافه عمر لول دي تي موجوك خلافه عمر لون mu maneko ma ne ko yarhamukallah parce que bi muy wax lii Omar deewagul mu ne ko yarhamukallah yal yàlla yërëm la inna Omar lam yamut Omar deewagul bi mu waxee loolu Uways al Qarni ne ko inna rabbi qad naahu lii saa borom yàlla taggee ma Omar qad naahu lii taggee na ma ko fekk deewagul ngal la bàyyi leen gaaw weddi may am ñuy dund ci kaw suuf li leen yàlla di may bari na de mu yàlla taggee na ma ko fekk Omar deewagul وقد علمت ما قلت لما لو خمناكو وانا وانت غدا في الموتى مونيكو من اك يو الك دانوي دي كون بوكي ليغا خامني اوي سوني القرني واخون نكو سي اتو ياغ راوتينا جامونو جي ني تول سا يوغين خيي ديغ كو دي لو ياغول مان مي دي واخ ولا يو مي دي سيتان كين سي نون دينا دي سو غني ياغ نون نيا نيب دي نين تاخو سي سونو كانم بوروم سبحانه وتعالى انا وانت غدا في الموتى ثم دعا بدعوات الخفاف mu daal di ñaan ci suuf bi mu ñaanee mu ne haadihi wasiyati laka ya bna xayaan lii laa lay dénk yoo harim bna xayaan mu ne maa ngi lay dénk kitaabullah allahu akbar waysun alqarani génn na aduna waaye mu ne ko maa ngi lay dénk téere yàlla bi di alquran mbokk yi su ngeen gisee sunuy wax yëpp ñu leen di dénk alquran ndax lii la ñu jàngee ci téere bi lii la ñu jàngee ci junni junni ci ay nitu yàlla junni junni ci ay wàllu yu yàlla ñu mel ni uway suñu ay junni junni laa ci xam parce que téré yu bari wax ci salafu salih yu bari man na la wax ne mokal nako wa ñom ñep dañ lay dénk alquranul karim kitab allah ma ngi lay dénk alquran kon yow mi di ma déglu ma ngi lay dénk alquran wa na'yu salihin ak tàgge ñu bax ñi manam sa yo degge nit ku bax dem na dee na su la doyut rek lenen dotu la doy wa salihin min almuminin nga dégg ku gëm yàlla ku de ku bax deena wa salihin min almuslimin ak ku bax ci julit ña deena wa naaytu laka nafsi mu ne ko yab na xayyaan maa ngi lay tàgge sama bopp fa alayka bi dicri l mawt maa ngi lay dénk di fàttaliku dee fa in istataata an laa yufaariqa qalbak soo mënee ne dee bañ la maanaam bul mosa nangoo fàtte dee tarfat aynin fafaal soo mënee ñàkk fàtte dee def ko wa andir qawmaka ida rajacta ilayhim soo delloo ci say nit nang leen waar wakk dax li nafsika wa iyaaka an tufaariqa aljamaa bul mosa taqalikoog mbooloo jullit ñi فتفارق دينك وأنت لا تشعر nga daal di génn ci l'islam te doo doo yëg fa tamuutu fa tadxula nga dee dugg sawara ci ginnaaw loolu ci nga ci la uwaysunil qarani door a wax ne allahumma inna hada yazumu annahu yuhibbuni fiik yàlla kii dee moom de mu ngi wax ne daf maa bëgg te ngir sa jëmm ji yow yàlla wa zaarani min ajlik mu ñëw seet si ma ziyaara si ma ngir yàlla yow sa jëmm fa adxilhu alayya zairan fi l janna maa ngi lay ñaan nii mu ma seetsee nii bu yowmal qiyaamee nga may ko mu seet si ma sama kër ci aljanna yal yàlla buur bi subhanahu wa taala may ñu loolu yal na yàlla may ñu ñëpp ñu ànd seeti uway sunu qarani bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane ci asalaf ma al quran dem seeti ko ci këram ci aljanna kon lii moo nekkoon sunu jotaayu tey ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xata'in fa min nuqsaani salla al ilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh L'eau multimédia moi l'un émission à Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Oldakar. Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires, accessoires